di taawam bu jigéen jóge na fi te demul ca dëj ba soxna Zeynabu Si mi topp ci soxna Umu Xayri jóge na fi te demul ca dëj ba waaw soxna Sofi mii soxnaam jóge na fi te demul ca dëj ba kon nag ñàkk a dem ci dëj dañuy xam ni bindam la moo tax mu def ko ma ne bu ma fekkee woon ba ko sëriñ Abdou di wax dinaa ko wax ni ko du bindam sañ-sañam la waaw nit ñi dañuy jaawale bind ak sañ-sañ bokkul waaw nga tax ne nag la tax mu def ko moom xam na ko parce que koo xam ni bu fi jógee laata ñu koy dugal bàmmeel dana la fekk nga jàll de l'autre côté di ko xaar loolu war na koo doy mu ngi mel ni li may wax daf la jaaxal yow Moussa yaa ngi ni tekk rek waaw waaw ma ni lay yëgal ni la tey bay boo ku gëm li muy gëm ndax di nañ lay wóorale ngay wuy ji yëg naa yëpp mais tey nag kenn ku ne li ngay gëm da koy gëm wala nga bàyyi xalifa saar yaa ngi nii ñi nga bokkal ci famille bi ñuy ay cousin léeg ñu di la woolu naan la waxal lii ak waxal laa ma bëgg nga ramu sa bopp waaw Abdurahman Sarr moo mën a dénkoon ni jaar na ca Serigne Cheikh wax ko ko Serigne Cheikh ni ko d'accord naa ci mooy ni la ca Tiwaawan dénk ma la donc ñi ci des fa ñuy féete féete nañ fa bàyyi leen foofa ñu naan lii laa waroon na def lii lu tax ñëwul fii je fu bu ko defee kon nag mbokk male Ousmane Gaye te moo yore axe Europe bi ñu renvoyé conférence Italie dama xam yépp na mu demee daf ma yónnee message yu ojo ni ma muy conférence ak muy daayira muy parteek ñun daal sunu préoccupation lenn la mooy yàlla sunu borom bu la fi bàyyilee sa bakkan bii rek ñu jeex na amuloon ni bala nga ni naam ne fa kon nag bu la yàlla téyelee sa bakkan rekk te sa tool booyul nga sant dëgg la walla du dëgg mu mel ni nag Moustapha Sy bu Louga bu góor gi Baba Sy mooy frère Mor Fall Sy bi nekkoon Espagne fa tabarakallahu